excellence président Macky Sall bi nga xamante ne moo am kóolute ak euh, confiance ci ñun defal ñu nomination bi nga xamante ne département Saint-Louis ñoo ko moom Gandiolé ñoo ko moom du Binta Ba rek moo ko moom parce que du liggéeyam kese du du du du kese du boolam kese kon donc ñi ko wër la ñi ko jàppale la di sant tamit nga xam ne moo nekkoon suñu coordinateur nga xam ne tey bu ma ci nekkee à cause de moom la muy monsieur Mouhamadou Mansour Faye kon boo sant yàlla di sant tamit suñu nga xamante ne moom la fi yàlla teg tey yàlla àggale liggéeyam ñun tamit yàlla boole ñu ci nga xamante ne ñu def mission bi nga xamante ne moom la ñu askan bi wóolu ba teg ñu di leen wax ne rek eh, di am mbégte waat ak kontaan ci ñoom rek waa parce que lu ñu jël fàttali ñu ñu ngi ànd depuis boobu di liggéey àddi wu ñu ñu ngi toog ànd jàppante di gën a wootewaat rek nañu gën a ànd gën a jàppante gën a liggéeyaat nee nañu ñor di bu dañuñ di ku yendoo tey kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp département Saint-Louis surtout waa ne tey buñu ma defalee ndomb tànk ñaan la kon maa ngi leen koy delloo ñoom ñoo ko def euh, te bu mag ñu ngi gërëm yàlla sant la koy ñaanal fu mu nekk yàlla ko yàlla defal jàmm mooy ci ndax moo seet gis ni am nañu compétence bu ñu ñëwee fii mu namañu tey membre du conseil économique social muy nam di gërëm le président Abdoulaye Daouda Diallo di gërëm aussi le président Bassirou Diomaye Faye ndax moom moo signé le décret de convocation de la section

सीधा समझ में संबंधम ले संबंधम कतको पूर्ण को तकिया तो मुझे ये मुझे समझ नहीं आता मासिबो राखोदा अब्बाबुल माम astawalo kan ah di moy sama troisième mandat ñu sonna sa président Macky Sall da koy sant ko gërëm confiance bi ñuy renouveler tout temps ni ñun mënuñu ko fay dañ koy bàyyi yàlla suñu borom rek ndax dama bi may ñëw léegi si portée bi laa dugg jóge Géejawaay ñëw ba au ba ñëw ba construction environnementale loolu ñun suñu liggéey si biir construction environnementale bokk na si li tax président Macky Sall jëmbat infrastructure mel noonu kon tey koy sant di ko gërëm suñu liggéey si conservation environnementale dafay lii daf ko firndeel di wax ni président Diomaye Diakhar Faye tamit ñu ngi koy gërëm ci confiance bu mu renouvelé si ñun di ko teg si loxo suñu président Abdoulaye Daouda Diallo di gërëm tey premier ministre bi nga xamante ne mooy Botoran bon ñun nag ay opposition yoo xamante ne nii buñ ko conseillé mu liggéey rek ñu opposé wul suñ ko conseillé rek dañu ñu doon conseillé sax président Macky muy liggéey liggéey bu baax gisee wuñ ko noonu ñu ko conseillé bu baax rek waaw waaye di sant yàlla bu baax di gërëm samay mbokk di gërëm samay dëkkandoo di gërëm département Guédiawaye bi ma jógee surtout di gërëm waa APR Yaakaar Alliance pour la bi nga xam ne falaa fekk di gërëm samay kilifa di gërëm les femmes pionnières APR national ki nga xamante ni nii wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañu waaye di gërëm Sénégal yëpp bàyyiwuñu kenn waa Sénégal yëpp ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm vraiment ndax ñun Sénégal jàmm la ñu xam te si jàmm rek la ñuy xëy noonu ko bëgg di ñaan yàlla suñu borom Sénégal yàlla jàmm ci yokk di ñaan क्या शेयर करेंगे वीडियो भी वीडियो भी करेंगे इन शर्मा की वीडियो ऐसा लगता है I really something the playground that should get my faith to double humo, double faith, the doctor for SLM, the playground of Salomon, the Tabam, Tabam, the Humo, the Bukan, Daddy, the Roman, the Atula, pour le chef de l'État, pour le gouvernement pour l'Assemblée nationale. kon tey fii la vraiment ñu ñëw fii fas yéene waat doorat ci géej gi ay projet yoo xam engagement la am muy le Sénégal en réalité. ak bu ëllëgoon li may les hommes changent et ndax ñun ñu jiite woon ñenn def waaye am na ñu des waaye ñun ñëpp Sénégal moo ñu li ñuy liggéey pour développement Sénégal loolu nag moo tax ñu nekk ci tey ñu recommandation pour le président de la pour son gouvernement ak pour euh, les autres institutions de la